internet IGFM ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di am contentement encore une fois di jàkkaarloo ak yéen comme ni nga ko xamee ñu ngi seen émission Face à Kia tey nag suñu invité bi ñu am ah tey moom jàpp nañ ko yàgg naa rëcc mais tey moom jàpp nañ ko

Euh, interne internetu IGFM di rafetlu vraiment seen liggéey ak seen taxaway ci réew mi. Mhm. te di len wax ne ubbeeku du ci yéen ak askan wi yëpp. Mhm. li ñu yor te moomuñu ko doonuñu ko. ñu man ci jël seeni xalaat pour gën a mën a jubal ci kanam incha allah. incha allah alors monsieur le maire li may mhm. commencé moom mooy que ne sénégalais yi découvrir nañ la après li nga xamante ne mooy. élection locale yi alors mais. dañ ko découvrir nii rek. mën nga ñëw un peu defal ñu benn feedback wax ñu kan mooy monsieur le maire waaw Seydina Issa Laye Samb laa tudd juddoo Dakaru fi ci yof magge fi yaroo fi euh, nek nak ndaw bo xamne yalla def nañu am xam-xam ci walu finance mhm. nek nak ci politique mat na fukki atak jurom ben ndax février bi ñuy waaj duggal ci lay def sama 16e année ci politique d'accord donc euh, am fanweeri atak jurom euh amit soxna ak ñaari dom donc mhm. nekk koo xam ne ginnaaw politique dañuy def ay activités communautaires parce que loolu aussi si la jàppale euh, Yoff gën ñu xam xam ne mën nañ leen jural njariñ ci lu bokk. Mhm. ma nekkoon cadre à la ville de Dakar mais ginnaaw élection yi nag dama fa obligé jóge ndax euh, dafa fekk ne euh, mënoo nekk conseil municipal. Mhm. nekk ci administration ville de Dakar. donc fan yi nag chômage laa nekk <laughs> di wut liggéey. chômage chômage bu baax. chômage bi non non en fait du chômage bu baax sax parce que chômage baaxul ndax lu bari loo doon man léegi mënatoo ko. Hmm. mais li ci am solo rek mooy dañuy dellu ca la ñu bëggoon muy entrepreneuriat. donc euh, si la ñu yàggoon a nekk avant même ñuy dem à la ville de Dakar. Hmm. donc si la ñu fas yéenee delluwaat. mais hmm. daal chômeur la maa ngi liggéey tamit. <laughs> su ma ko amee jël. dina ñëw mais monsieur le maire chômeur moom yaakaar naa ñu koy door am ci émission face à Kia. Ah, xam nga nag maire du métier. c'est une fonction qui est c'est dans un temps déterminé. Bien déterminé. voilà donc euh, première année bi dañu choisiroon naturellement le lépp. pour mm-hmm. imprégner les ci difficulté mairie bi. Nous mm-hmm. régler ko organiser administration bi. Mm-hmm. organiser le bureau municipal ku nekk am cër bu pour que nous puissions ñu fi tamit mbir mi dox. parce que équipe nous woté yof yoof bi ñu bokk lañu wax. donc naturellement aujourd'hui objectif est ñu atteindre. moo tax ñuy projet wu ci 2023 bi ci delluwaat ci utal loo xamante ne aussi si dañuy yore njaboot gi parce que ci la bokk ndax li ñu dénk muñ ci dara mhm. donc day baax aussi ñu mën di sàmm suñu bopp ci li nga xamante ne mooy suñu responsabilité. dëgg la mais euh, loolu dinañ ci ñëw ci kanam. muy euh, li nga xamante ne moom mooy fonction maire bi mhm. et tout ça. mais euh, Seydina Issa Laye mhm. fan la jàngee génnoon na Sénégal wala. comment ça s'est passé sama jàng moom daanaka am na parenthèse bu ndaw boo xam ne maa ngi ko defee Cotonou. Mhm. parce que gune laa woon bu xaw a tëre di tuuti ñu yóbbu ma Cotonou ci suma frère papa yàlla na ko yàlla xaaree aljana. Ah, euh, loolu rek mooy parenthèse bu ma génn jàngi bitim réew. Mhm. mais jàppal ne études yi ma def yëpp maa ngi ko def dans des écoles sénégalaises. donc sama sama sama sama cycle préscolaire ak primaire maa ngi ko defee école présentation de Marie. Mhm. ci Yoff aéroport.

fu wax école supérieure polytechnique ma am fa sama licence en sciences et techniques de gestion ma jóge fa dem IFAS voilà mais sama master en banque institution financière donc bindu woon naa di jàngaat pour def master en finance islamique ak master en finance et gestion des affaires publiques mhm. donc maa ngi ci xam naa war naa reprendre balaa yàgg Inshallah. Mhm, parce que dama defoon tuuti pause pour me concentrer wu ci projet bi ma amoon ci politique mhm. muy doon meru Yoff donc euh, sama jàng daal ci loolu la nekk ma nekk nag koo xam ku bëgg lecture la hmm. donc euh, dem fi ñuy wax bibliothèque Ousmane Sembène vraiment bu yof fa laa lu bari ci ci lecture hmm. donc fala laa découvrir aussi lu bari ci àdduna hmm. ndax lecture moom doo génn mais daanaka di nga xam vraiment ce qui se fait ailleurs dëgg la alors euh, monsieur le maire enfance bi na la monsieur le maire il calme ko ko di nga waaw non non dañ nekkoon xale rek. def yi fu mhm. xale. Mhm. bu ñu màggee war def yi fu mag def yi fu mag. Mhm. mais on vraiment ay xale yoo xamante ne suñuy wéyjoor lañu encadré. yar ñu fu ñu war a yare jàngal ñu nasaraan jàngal ñu alxuraan jàppale ñu nag. ba mosuñu ñàkk dara ci suñu dund mosuñu manqué dara xam nga euh, li ma li ma yéem ci ci nit ñi peut-être. tey la ñu xam mais ku jàngandoo ak man Seydou Nourou Tall jàngandoo ak man université xam ne yàlla musuñu bàyyi. donc moom la may wax nit ñi rek mairie taxul ma dawal auto mairie mhm. taxul ma sol yëre yu baax té tout ça on le droit à des parents yo xamné ne yaay ju euh dundam pour njabootam bàyyi mhm. bo xamné aussi lepp dafa mës a taxaw daw ci banéxu njabootam mhm. donc vraiment Euh, enfance bu bu naturel nekkoon nañ nag ay xale yu góor xale yu ndakaaru mhm. dem cinéma dem baal def daal li war a def yëpp ci tolloo def yëfu xale mhm. mais ba responsabilité jotee aussi jël nañ suñu responsabilité taxawu suñu bopp suñu ànd ak suñuy wéjur ba tey alhamdulilahi rabil alamin mu ngi toog ci bopp mairie bi mhm. alors ñu dégg Seydina Issa Laye alors Seydina dafa bokk ci famille religieuse layène wala waaw effectivement loolu na ba parce que Euh, fierté la aussi. Mm-hmm. nga am cëslaay am wéeruwaay ci wàllu àdduna ci wàllu diine bokk ci njaboot boo xam ne yàlla barkeel na ko loolu dañ koy sante suñu borom. Mm-hmm. ak suñu wéjur bu jigéen bi nga xam ne. tey wéjuram bu góor Seydina Limaam alayhi salaam moo ko suma wàllu wéjur bu góor aussi euh, bi Seydina Limaam alayhi salaam wootee suma euh, mamu papa mu njëkk a taxaw ànd ak moom donc nag muy deux familles qui ont des liens assez assez profonds assez étroits mm-hmm. ñoom ne dara xaju fa donc ñu dem nag ba man ma judd ci mag sumay frères ak sumay sœurs mm-hmm. donc loolu dañ koy sant yàlla donc ci lañ bokk mais nag euh, yareew ñu ñu si jiko koy doxee ak mais mm-hmm. si di ci ci wàllu yar ak teggin ak bokk ndax suñu wéjur yi sama côté papa ñu joxe leen seen deret tour nañ seen deret pour Yoff mën a nekk donc tey dañ bokk ci njaboot goo xam ne bu Yoff see fii tey balaa ñun suñu jëmm yu yi di ñëw ñoom am nañ ci taxawaay yu ama ama am solo donc loolu nag la suñu borom la mhm. macha allah amul benn contrainte ak la dugg ci politique bi et tout ça parents yi nan lañ ko gisee waaw nee naa yi dañ ñu jàppale en fait ñun suñuy wéjur euh, dañu allier euh, tradition bi la culture traditionnelle valeur islamique et ak l'ouverture sur le monde en fait mm-hmm. dañu enraciné wu ci seeni ci seeni mbir yi leen mag ñi bayil ba nak nag ko ci aduna mm-hmm. parce que on a un papa administrateur civil am nañ yaay bu jang def école française terewul ñom jang nañ alcorane donc aujourd'hui euh, dañu bàyyi ak ñun liñu bëgg nga xam mengona ak diine mengona ak jamono ñu ànd ci ak ñun gunge ñu aussi. Mm-hmm. donc lolu ça a été une chance d'avoir des parents ouverts et intellectuels moñu may tay ba biñu bëggé dugg politique Euh, topp nañu yoon bi ndax wax nañu ne nañ dem seeti xalif bi fi nekkoon di suñu kilifa ñun ñëpp. Mhm. seeti wéjur yi tàggu leen mais fi ñu dem yëpp alhamdulilah amul woon kenn ku ñu tere. li ma ciy ko rek mooy am na suma kilifa bu baax bu ne woon lii du suñu aada ñun ci famille bi génn di politique. Mhm. mais euh, li ñu sas mooy li ñu mag ñi yare bàyyi ko fi en terme de valeur en terme de principe et d'éducation ñun ñu doxee ko waxe ko. moo tax it boo xoolee ci seen politique doo ñu mës ñu ne transhumé nañ incha allah. parce que ki ñu gëm ànd ak moom ci politique ci mom la ñuy sax moom la ñuy àndal ba yàlla weddi mais wax dëgg yàlla euh, loolu yëpp dañ ko def pour sàmbonteeg ni ñu wéjur yare hmm, monsieur le maire yoonu politique gudd na de gudd na mais xam nga man suma njit Khalifa Sall hmm. dañ bokk ay principe bokk ay valeur hmm. bokk peut-être jikko ci yu bari man moo tax mën naa ko mën a ànd ak moom parce que moom li wax xale rek euh, ku am sa teen ak meew gas ko jël ko ñun ñu ànd ak Khalifa Sall bu ñu amee suñu butéel wala suñu koppab meew doy nañu seuk donc ñu ngi and ak mom ci jafé jafé bi muy génn parti socialiste ñu ñu fay dakh je pense Ousmane Tanor yalla nako yalla ko yàlla rëm te xaare ko àjjana ñëpp xamoon nañu cofeel gi mu am ci sama jëm ñep xamoon nañ respect bi ma amoon ci jëm mais téréwul bima ma sama euh, xel mayé ma analyser japp naa ne Khalifa Sall man mom la mëna andal ci politique. donc té ñaanuma yalla nak vraiment mo wax sama mag Barcelona Diaz ndax dara dox suñu digënté mm-hmm. donc euh, dinañu and ak ñom ba lu yàlla dogal réew mi la ñuy wut bu ñu ko joxee alhamdulilah ñu ànd ak ñoom liggéey bu ñu ko joxul it ñu ànd jàppale leen ci gëna a parti bi nga xamantene moy taxawu Sénégal. ndax la job de maire. Mm-hmm. comment ça se passe gis nañ né ñëw nga voilà jeune nga. Mm-hmm. apporter nga aussi sa touche bi nga xamantene mom moy mooy sa sa jeunesse. et tout ça gis nañ ne yaa ngi digitaliser un peu essayer d'aller à la rencontre de la population. Mm-hmm. même même euh, su nekkee ci ci ay canaux les réseaux sociaux et tout ça récemment def nga sa bilan alors mën nga ñu résumer un peu comment ça se passe le job de maire n'est pas facile. jot la job non c'est difficile effectivement et je m'en excuse auprès de tous mes concitoyens de ma famille parce que des fois je bëgg que finalement je pense que je vais faire un wax. Mm. parce que tellement c'était compliqué. La période bi ñu jokkalante maak yow je ñu fekk mu ma voyage dans les débats d'orientation budgétaire. d'accord donc vraiment war forces suñu budget donc yooyu yëpp ay difficultés la woon mais ma si jégalu ñëpp vraiment euh, mais yombul. une mm-hmm. vie de famille et puis ku jug am yaakaar ci et les maires, ça c'est un plaidoyer que je fais à l'AMS, au réel, à toutes les structures qui, rassemblent les acteurs de la territorialisation, de la décentralisation. maire beaucoup de moyens. et c'est extrêmement difficile ku jaaxle ci maire ngay ku location alors que le maire n'a pas des outils pour le tout ça, ça su ne soxlay askan bi a secours aux indigents mais en général ci fête religieux qui koy utiliser tabaski tamxarit Korite, Gamou.

parce que tax aussi ma jàng lu bari tax au niveau international ñu ubi un carnet bo xamné ne mu ngi jariñ yof donc vraiment yombul mais nak c'est un plaisir manam banex lañu am tay ci servir askan wi banex lañu am nek ci mairie biñ ñëwé réformer nañ lu bari parce que tay mairie bi amon na ay way ci yu metti ci jafé jafé ci koom donc biñ ñëwé ñëwee li njëkk def moy wañi euh, charge mairie bi manam limuy fay ci salaire parce que mairie bi ñu fi nekkon ci. temporaire ëpp nañ juróom ñaar ba jege juróom ñetti téeméeri nit loolu ci li doon yóbbu suñu xaalis ci la bokk donc bu ñu ñëwee loolu lañ njëkk a dindi donc jële masse salariale bi pratiquement 38 millions par mois yóbbu ko ba ay 16 18 millions donc jëlee nañu globalement enveloppe bi millions ba millions yooyu moo ñu permettre ñu enrôler plus de millions fois ci couverture maladie universelle mairie bi may leen ko gratuitement moo ñu permettre ñu yeesal école yi permettre ñu Nous lancer le fonds d'impulsion de l'économie locale permettre ñu nous oui ñu am une bonne capacité d'autofinancement pour les investissements parce que gis nga ni ñu nekkee di defar euh, projet poste de santé yi ak école yu bees yi ñu war a tabax yooyu gis ngeen ne ñu ngi ciy donc jàppal ne la amone demb ak la am tay lu wuté la donc ñu ngi ci yoonu liggéey ñaan yalla defal ñu ak mucc parce que lu sorti aussi yalla la yalla aussi dimbali ñu muccal ñu ci kujje parce que xam nga limay wax gaay yi xol neexu la fac donc te gaa yi ñaari bàcc ñu leen bàcc ci at bi. Uh-huh. yooyu aussi tamit bon taxul euh, taxul ñu nite. Mm-hmm. ba tey ñu ngi yàq mais dañ leen di leeral rek ne ñun yàlla moo ñu fi teg parce que xam nañ ne ñoom jéego yi ñu def pour toog fi ak ñun yi ñu def. Mm-hmm. yàlla ak yàlla moyens yi ñu amoon ñun amuñu ko pexe yi ñoom ñu amuñu ko. Mm-hmm. donc ni ñu fexe ba toog. incha bu neexee yalla nan lañu fexé ba am bilan. te nan la ñuy fexe ba mhm. satisfaire wa Yoff. Mhm. nga wax sank euh, hôpitaux yé mais wa euh, nofa gars jeunes yi maire nañ de seen terrain bi monsieur le maire. ah non jeunes yi ñun biñuy campagne euh biñuy dugg ci kër yi parce que ñun campagne de proximité et de recueil d'information information lañ doon def. Mhm. lan la askan wi bëgg ci sen quartier. dañu né ñom li gis moy lepp lu am maire yi ko yóbbu Yoff village ñom c'était extension yi amuñu dara ñu ne leen nag yéen la ngeen bëgg ñu ne ñu poste de santé defaraat seen infrastructure sportive yi donc jeunes yi meruñu ñëw nañ fii ci maire bi waxtaan nañ presque pendant trois heures de temps ba am accord war naa fa dellu euh, dimanche bi di ñëw le 29 def audience publique au niveau de Nord Foire mhm. pour vraiment leeralaat mbir mi parce que dafa bëri manipulation politique dafa am ay nit yu nekk ci suuf xam nga boo fi nekkee télé doon kilifa ci santé. monsieur le maire xeer yi bari na. non il faut ma ni xeer. ah don ministre télé def fi poste de santé. Mhm. ah ñun ñu ñëw nekk maire même pas un an def ko boucler étude technique boucler financement bay waji a def pose première pierre. Ah. mais fàq si faw faw si su am. <laughs> mais comme je dis wax naa ko wa Nord même ñom buñ ko bëggul wa tongor a ngi xaar wa Ouest Foire a ngi xaar wa Jàmbaar a ngi xaar ñu problème mu def ko ci lieu mais ñun ñoo bëggoon créer un équilibre infrastructurel entre Nord et Yoff créer créer équilibre entre Ouest ak Yoff. Mhm. pour ñëpp mëna a gis seen bopp ci maire bi li ñu doon wax mooy cité nouvelle yi gisuñu seen bopp ci maire bi tey cité yëpp am nañu adjoint au maire ñu ngi ci bureau municipal bi ñu ci commission technique yi projet yu bari yu ñuy développé tey foofu lañ ko def mhm. donc loolu wareef la c'était un engagement de campagne et alhamdulillah, même si le projet ne passe pas respecté nañu ñun suñu cadre, mhm. parce que ut neen financement def neen étude technique yi ñëw nañ pour def ko te jeunes yi li leen c'est très simple le terrain fait 1000 mètres carrés on prend les 700 def ko poste de santé amélioré dina créer emploi dina jàppale jigéen ñi ak yaay dina am des pour la couverture maladie universelle de Nord Foire dina am ay espace de jeu ci ginnaaw poste de santé bi pour xale yi muy jardin ak espace de jeu. Mm-hmm. ñu jël terrain de basket bi yóbbu ko ci VDN bi xam nga VDN bi am na terrain de football bu BCEAO 1. Mm-hmm. ñu ne nañ fa def terrain de basket de dernière génération aux normes NBA def fa terrain de football synthétique 6-6 def fa boulodrome ak yeneen infrastructure xam nga kon kooku mu ngi jéem a dëkk bi mais nee naa la chaque fois du ñëpp ñooy comprendre sa vision mais ce qui est important mooy on aura un bilan en fin de mandat et ça incha allah ci ndimbalu yàlla dinañ ko def. mais waxtaan nga xale yi daal ba ngeen. waxtaan nañ ak ñoom te zinc yi ñu fa defoon sax dindi nañu ko pour wax ne ñun nekkuñ fi di xeex ak ñoom. Mhm. xulóowuñu xeexuñu bëgg ngeen alhamdulilah bëgg leen yóbbu feneen c'est très simple. man aw ma ci aw ma ci problème. Mhm. waaw li ñu yaakaaroon mooy comme peut-être yenn maire lu ñuy def et c'est légitime war def projet population bi am ñu opposé parce que bi tabax école japonaise bu Nord Foire gendarmerie mo taxaw ñu tabax ko donc Nord Foire a toujours été un quartier parfois réfractaire ci yenn projet mais moi je dis je n'appelle pas la gendarmerie je mm-hmm. discute amna espace yu nekk Nord Foire c'est des jardins mais ñi jardins yi préfère lañ garder donc espace bi moom maire, man mairie état jox ma mi terrain basket bi fof rek la amoon ci bu autorité pour def ko mais il y a yu ne qui ne fa nañ leen ñi ne fan lañ passé seen enfance dindi ko day metti si ñoom. on le reconcerte mhm. ah, mais jàppal ne bu doon ay nitu fitna lañ heure bii ñu ngi mais on a voulu une démarche de consensus une démarche de responsabilité et de dialogue avec les populations. Mhm. Ah, mais jël ay mbeur yóbbu leen fa gendarmerie luñ ñu def la mais on refuse de le faire. D'accord, donc affaire de entre jeunes la daal dañ koy et puis ñuy waxtaan ah. ñu ngi may sànni xeer ci Instagram maa ngi leen di tontu. Nous may sani Twitter ngi pour wax amul animosité. Mhm. il faut souffrir à accepter les idées des autres. il faut endurer pour durer on compte endurer pour durer inshallah. alors monsieur le maire bilan bi bilan ak euh, perspective mhm. les projets yi waral di mais monsieur le maire projet wax d'ici un an. ci deful la ko live chaque six mois. C'est ce di xool. baax na lu may inauguré dina la wax. mais jàpp ne li fi def bu nekkee maire ak léegi ah xemamu na te nous ñu ci mm-hmm. parce que on n'est pas un maire qui est avec l'État mais on a des relations très responsables avec l'État on n'a pas de moyens mais on a su en créer maire bi une recette globale 4 millions par mois maa 11 millions Et mois bi dina yegg 12. d'ici 6 mois je ñëwee en na la 15. Wow. Inshallah. Conteneur, par exemple ñu ngi am 1 million ci année bi là je fais 1 million par mois. Mm-hmm. ak yenen ak yenen ak yenen te dina am yu bari yo xamné bu waxtu bi jotee la woo. inshallah né ne la ñëwël comme ça doto daw légui may daw pour nga ñëw di xol li may def. kon baax na incha allah kay saa rek dina ñëw tant que jeune yaa ngi ciy mën a man je suis partante. alors en tout cas y' a y' a d'ambitieux projets le projet de Nangagne terrain de football il est bouclé le financement est prêt. Mm-hmm. le projet du nouveau terrain de basket le financement est bouclé. l'ordre de mm-hmm. service fait L'espace de loisirs et de détente de Terme Nord il est fait le marché a été attribué l'ordre de service a été signé. Mhm. poste de santé bi ordre de service bi signé donc xam nga toog 9 mois 10 mois nga def yooyu yëpp ah Rokhaya. ne leen waaw rek monsieur le maire nekkul continuité aussi. continuité waa ji fi nekkoon nga ñëw yeggale. ah xoolal rek ku fi toog juróomi at tere bañ teggi la rek ndax continuité am na wala déet. monsieur le maire xëy terme nord 50 ans amuñu ndox man dama ñëw utal leen ndox en 3 mois. Hmm. terme nord ma ciy remercier bu baax la xale général de Layènes si jàpp ci liggéey bi. dëgg la d'accord donc monsieur le maire li ñu naan. 6 ans ngay tabax poste de santé mënul yegg ma ñëw si 8 mois ma yeggali ko ah Rokhaya xoolal rek. après dinaa dem xool. xanaa <laughs> ah, li ñu naan li duuf ci nag bi xajul ci cin li. xajul bilan bi moom xajul ci émission danga may may 1 h 30 amul problème ma tant que population bi mën nañ cee jëriñu rek. voilà je suis toujours dedans. donc euh, euh, monsieur le maire nga nekk jeune. Mhm. nekk maire mu nekk responsabilité. Mhm. tuutiwul nak parce que comme tu l'as dit tout à l'heure euh, yakar dafa fort. Tax xam nga mhm. ñun sénégalais yi am yenn habitudes yi. nga nek jeune aussi di jité ñi nga mag ak ñi la mag. voilà ñu nek ci population bo xamantene de manière générale. de manière générale population bu jeune la sénégalais yi jeunes yi ñoom ñoo ci ëpp alors euh, ñu gis c'est ainsi euh, scène arène politique bi. Mhm. que affaire yi tàng na lool. c'est normal parce que dañoo nekk euh, avant élection présidentielle. Mhm. donc mais liñ ci gis lu bees mom moy violence bi et surtout wax ju deug ci violence verbale bi et tout ça. Mhm. tay ji so amone message bu nga xamantene ne ngay dénk jeune yi ñu leen di suivre surtout lañ moom ngay dénk jeune lan lay doon. injustice mu am xoli juk jug jaxaso c'est ce qui conduit au paroxysme de la violence jamono ji mais demain, wax jeunes on peut résister sans détruire mhm. le Sénégal nous appartient looy out, doo ko yàq dëgg nga mer dem taal état civil sa bopp nga yàqal ngay out mer tal mairie sa mairie nga tal. Et sa xaalis lañ koy defaraate donc aujourd'hui on peut résister sans être violent man ci laay sénégalais yépp Ken mënul terre jeunesse sénégalaise résister mais il faut le faire ci dal ak yar jàpp nañ Khalifa Sall on a résisté gis nga plateforme yi defone defoon yépp ba Yalla may mu génn donc on peut s'opposer tout en étant responsable donc loolu laay woo ñëpp mais aussi di artu état bi injustice jaay doole kenn du ko yore réew muy jur des situations conflictuelles muy jur situation yo xamné ne kenn ñaanu ko Yalla muy ci fitna lay nekk événement de mars il état obliger d'aller obligé dellu parce que nous devons contenir la furie populaire est-ce qu'on veut réellement revivre ces situations-là dans un Sénégal qui tend à être une puissance pétrolière donc le président Macky il a il a l'histoire face à lui troisième mandat wala jàmm est-ce que jëmmam m'a troisième mandat les paroles s'en vont en l'air et les écrits demeurent Mon monde le Sénégal au cœur mooy euh, livre bi mu taalifoon mhm. wax ne mu ngi entamé son dernier mandat donc gor ca wax ji surtout que ne nee na moom ci ligne guerrière la juddu maanaam ligne boo xam ne ay ay góor yàlla ay guerrier ñoo ci nekk mais guerrier du doole guerrier d'abord sàmm sa bopp la sàmm sa kàddu mhm. sàmm yow principe ak valeur yi ñu la yare dama koy delloo rek ca wax ja mu waxoon waaw ne am na si ligne bu mu jóge te ligne boobu am na ñu valeur ak principe gis nga bàyyi fi du matériel des infrastructures baax mais bàyyi fi way bu rafet mo ëpp solo ndax matériel yi cataclysme day ñëw rajaxe ko. Euh, dara day ñëw yàq ko mais jëf ju rafet ila yow din du fay. ñepp gis nañu Zulkarnayni ni mu nekkee won bour nekk un roi juste. xam nga an matériel yu ñu fi tabaxone lepp dañ na. mais wayam bu rafet jëfam ju rafet mom lañuy sam tay tey ba mën ko fi di jariñoo. c'est valeurs et ses principes. maki nak si s'il veut faire du machiavélisme ah bon rek affaire affaire de choix mais ni moom yéenewuñu ko mu dugg ci lo xamné de ëllëg lay don dal mhm. té amna gatché ba paré ci dossier Karim am gatché ci dossier Khalifa Sall donc mais mu ngi mu ngi hmm? mu ngi bëgg mu ngi bëgg défarat affaire yi bëgg défar la pour des li nga xamanté moy droit civil ngi xaar Karim ak xam nga président day signalé gauche jàdd droite mais ñu ngi xaar ba xam engagement yi mu jël mhm. pour décrisper le climat politique sénégalais ndax dina ko def. d'accord voilà mais na jàpp ne stade Ablaye Wade rafet na sphère Ousmane Tanor Dieng baax na rafet na hôtel Diamniadio baax na te di kaasal waa Diamniadio aussi soma ma ko mayee. Hmm. parce que amatuñu suuf bu ñu bayee boo demee Déni Malick Guèye et consort ñu ngi souffrir donc defar infrastructure di yaaxal ay nit amul njëriñ mais def infrastructure rafet yoo xam ne ëllëg mën nañ ko màbbal def leneen.

aussi dama si cette photo fera le tour du monde donc pour wax ne lepp lu ñuy def du aussi l'état du Sénégal le régime de Benno Bokk a beaucoup plus de responsabilité seen gënu mi fa ay nit yu leen ay bëgg xam naka ci mm. donc dañu que le Sénégal survivra au régime de Benno Bokk donc nay rafet li naan ñaaw na ba noppi buñ ci dolli dara. bu mu gën a ñaaw bu mu gën a ñaaw <laughs> loolu daal laa moon te di wax jeunesse bi aussi. Mhm. nañu résister d'une manière responsable taxaw défendre suñu leader politique. mais sàmm aussi suñu réew. parce que mm-hmm. waruñu mën a jaral Macky Sall yàq réew mi. Mm-hmm. incha allah alors internet IGFM ki ñu jàkkaarlool tey moom moo nekk ki nga xamante ne moom mooy monsieur le maire de Yoff alors ñu amoon vraiment honneur jàkkaarloog moom euh, waxtaan bi yaakaar naa ne ak lu mu mënti doon même su dee benn point sax yaakaar nañ ne mën nañ ci jëlee jàngee ko ci mu nekk xale yoo li nga xamante ne moom mooy responsabilité maire mais di ci béy waaxam alors li moo nekkoon seen émission face à Kia leen di jox dig daje ak yeneen profil incha allah.